xew woo naa leen ni leen nangam yii xew ëpp na mooy xew yi nga xam ne dañuy soppi ab dëj ñu soppi ko ngénte jël ak ceet ak yooyu yëpp maanaam di ci xumbal boole ci rek am lom am ay ay ñu góor ñu nekk ci biir dëkk bi ñoo xam ni dañuy wëlbatiku ànd ak jigéen ñi di jaxasoo ak ñoom di jaxasoo jaxasoo goo xam ni lépp lu xew ña jaxasoo ca biir ñu filmer ko su ko defee ñu génne ko ci àdduna bépp te ku ne xam na ni dëkk bi Serigne Saliou na mu ko daan waxee. jaxasoo gi ak góor ñi jigéen ñi loolu sëriñ bi da ko daan tere guddeeg bëccëg mu bokk ci njàngaleem sëriñ bi ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha kon ci xew yi wërta dem jaxasoo gi wërta demee noonu ba ñuy egg rek ci nga xam ne seen biir la ñuy nekk lu xew lu ne ñu génne ko dugal ko ci biir internet loolu jaaduwul tegewul ci yoon jaxasoo gi rek moo jaaduwul jigéen ñi fañ nekk mën nañ faa nekk ñoom góor ñi nekk fañ nekk waaye léegi mbir mi day jaxasoo ba xam doo xam lan lay niru te loolu dëkku Sëriñ Tuubaa ku koy def ku ne amatoo loo aw lay bis ni ki tey tere Sëriñ Muntaxaa yi te it safinatul amaan loolu dana ci jóg dana ci jóg wér a wér ci njiitu sëñ Modou Lo loolu na ngeen ko xam da ngeen da dañoo war a bàyyi xel nii loolu ñuy def lépp muy filmer yeeg ànd ak ñoom waxuma la film waaye jëmmi jaxasoo gi rek moo teewul ci yoon bu aw xew amee ñu filmer ko ba noppi fañ leen di fekk ñoom ñoomu neen lay doon loolu jaaduwul dinaa ci indi nag kenn koo xam ne damay tudd turam jaxaran danaa wax it lu jiitu tey sama digg ak moom am na ngénte lu xewoon Touba. ñu daje fa dañ faa daje ci ngénte la kilifa yi wax ba Cheikh Abdoul Fatah moom Cheikh Mouhamadul Fadil bëggoon tàmbali wax jël kaddu mu jóg mel ni kuy regaju di wiccaxu nga xam ne boo ko gisee wér a wér borom ñaari tur yooyu lañ koy jàppe te mi ngi biir Touba danaa egsi ci moom keroog man mii di wax ak yéen lii jiitu na tey keroog maa jóg ci biir mbooloo mi man ñëpp nga koy dégg sëñ Moustapha. moom Cheikh Mouhamadou Amine Baara mi ngi fekk bari na keroog ñoo xam ne la ma naroon ci moom keroog ñëpp nit ñaa taxaw ba loola mu amul. kooku nag dinaa leen wax mooy kan dajawaat nañ Daaru Rahman ci màgg Daaru Rahman mu ànd ak jigéen ak i góor ñuy ziar si di leen filme keroog maa woo ay nit di leen na dakk nañ génne leen ko ci biti bu mu fi filmer kon man bi mu daataan def lii ñaari yoon daje na ma moom bii loola nag booba ndigal jógul waaye bii yoon moom yow njànku njaay njànku njaay ma wax bu baax njànku tuddoo Saliou Ndiaye njànku njaay tudd la nga daan def bu ñuy togg nga taxaw ci ginnaaw di ñaan ay xooñ njànku njaay laa wax tuddoo saaliwu njànku nga tudd nit ñi xamuñu loolu wiccaxu bi ak li nga xam dem nañ ba nit ñi am nañu def ci youtube bi di di la tudd borom ñaari tur di la ko wax ren nga xam ne amul tey képp ku lay gis kuy taxaw jàkkaarloo yow du ci am lu muy laam-laamee ci wet googu ndax fan ngay toog ba tabax kër def fa piscine guddeeg bëccëg nga dëkk fa te nekkoo ci dara topp ay jigéen guddeeg bëccëg dem ba ci jigéen ñiy sëy seen biir wujjeeg moroom ja bu la ci kenn neexalee nga xasal ko kenn ci biir géew loolu laa ni loolu jeex na moom bis ni ki tey bi jeex na jeex na bu jëkk ne la booba ndigal li jógagul man damaa fekkoon ma jóg ci naaj ca tax waaye bis ni ki tey nag say bo nga dem liggéey wala nga toog sa kër waaye lii moom dina bokk ci li sëñ Muntaxa di jàpp léegi léegi ñu dolli ko ci te boole ko sax mooy ñi ànd ak jigéen ñi fu ñu nekk ñu nekk fa guddeeg bëccëg nga xam ne jaxasoo boobu loolu sëriñ Muntaxa dina ko bokk na ci li sëñ Muntaxa tere te Safinatoul Amane dina ci jël ay décision bu rapidement loolu na leer ñañ waaw ndax ëpp na ba yow nag loolu nga def noonu guddeeg bëccëg ba nit ñi di am na ñu ko dugal ci YouTube bi wax ni sax ñoom tudd nañ la ba tudd loolu yow njànku njaay nit ñi naan la saal Njaay njànku njaay nga tudd rawatina nag kilifa yi koy defit teguñu ko fen ndax ku mel noonu nga jël ko di ko jox bieb màkka wala nga di ko jox xaalis wala nga di ko jox leneen bu boobaa loola kenn du xam ne muy niru maanaam am na loo xam ne dafa war a jeex ñu war koo arrêté dëgg lañ koy wax bu fekkoon ni sax yow dañ ko lañ loo xool mënuñoo xam dara waaye ku la xool ku ne boo waxee yaa ngi regaju yaa ngi wiccaxu jigéen juy taxaw rek nga ba nëpp yor sa këru bopp nag yor alal jul jeex fu jigéen ñi nekk yaay jiite loolu guddeeg bëccëg ànd ñoom ba noppi di jaxas soxna jàmbur yi seen biir loolu day jeex yow njànku njaay nga tuddee sa bopp Sall Ndiaye tudd gi ngay tudd sëñ Saliou daara jàllaa nekkoon yooyu yëpp xam nañ ni mu demee lépp xam nañ ko kon loolu bis ni ki tey nag dakk moom lu leer nañ laa wax na dakk bis ni ki tey nga jëm seeti loo def waaye lii moom du mën a continuer moom